أحمد ربا كونه لي ألنا حصمني من العذاب ولنا أحمد ربا كونه لي علنا عصمني من العذاب ولنا أحمد ربا كونه لي علنا حصمني من العذاب ولنا صان جحاتس طباق أحسنا لي ظاهري وباطني فحسنا حبي له وللنبي تبينا ولي ما اختاره قد عينا أشكره شكرا يزيد يقنا ولي لا يفدي دواء يقنا بجلني مغن كريم مكنا وطيب الرزق لنا والمسكنا إلي قاد الله أجرا حسنا ويقظا طيب لي والوسنا لي قاد في نومي سرا بتنا وبي يباحي كل من تفتنا جمال ربنا توجه لنا بغير مكر ذات نذء لنا نفى العزيز ما يجر الوصنا لغير نحوي ولغير ينسنا نفى الذي كيد الأحد وحنا شكيحنا في كوني لي وحنا حدمت بالله بنا من لعنا بلا لقاء والإله معنا تبت له من غير شكر علنا وقعد لي منه تعالى ولنا سن محمد المهدي إبراهيم الحمد لله ñu ngi sant yàlla. di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di gërëm ay saxaabaam. di gërëm ay saxaabaam. ak xulafaaw yi nekkaloon yi nekkoon. awliyaaw yi nga xam ne ñoo jàpp ci diina ji ba mu agsi fii. ak awliyaaw yi nga xam ne ñoo jàpp ci diina ji ba mu agsi fii. di gërëm bu baax Mawlana Cheikh Ahmada Tijaani radiyallahu anhu ak Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu di gërëm suñu maam Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu ndax ñooñu ñoo tax Sénégal ak tey yónni sëriñ bi nag moo ñu yónni nee na bëggoon naa ñëw sax bëggoon naa ñëw sax ndax dëgg-dëgg jaral nga ko loolu te mu ne mu ngi fàttaliku ci taarix te ci taarix suñu waajur waajur Cheikh Mouhamadul Bachir Mbacké. ak Cheikh Ibrahima Niass. ak Cheikh Ibrahima Niass. anhuma liggéey yi nga xam ne liggéey nañ ko ci Sénégal. liggéey yi xam ne liggéey nañ ko ci Sénégal gii. rawatina Kaolack. rawatina Kaolack. suñ demee ba Kaolack mel nii. suñ demee ba Kaolack mel ni mu mel ne tey. nga xam ne diine nga fay soo te soo fa duggee rek. boor boo ko duggee. boor boo ko duggee. moo xam nga jógee kawoon. moo xam nga jógee kawoon. nga jógee ci yooni Dakar. wala nga jógee ci yooni Jurbel. foo jógee rek. bunt boo mën di jógee duggee ko Kawlax rek. wala nga jóge ko ci yooni Gàmbi gële yooni Pont Noiro foo dugg rek foo dugg nga yëg diine da nga yëg gis nit ñu baax da te loolu yëpp ñoo jëmm yooyu ñoo ko liggéey te àddina yëpp gis nañu seen liggéey boobu comme ni ko Sidi Habib suñ doom waxee comme ni ko Sidi Habib suñ seen doom waxee ñaar ñooñu niñ meloon. ñaar ñooñu niñ meloon. ak jàngale yiñ fi bàyyi. ak jàngale yiñ fi bàyyi. ci jokkoo. ci jokkoo. jokkulante ay mbokk. ci jokkulante ay mbokk. ñëpp gis nañ loolu. ñëpp gis loolu. mais comme ni ñu yonent bi wax li axiihi maa yuhibbu li nafsihi du ngeen gëm yàlla lu dul ne bëgg ngeen seen moromi jullit yi ni ngeen bëggee seen bopp. mu ne comme li yonent bi wax du ngeen gëm yàlla mukk ndere bëgg ngeen seen moromi jullit yi ni ngeen bëggee seen bopp. mu ne ñaar ñooñu jàngale nañ mu ne ñaar jàngale nañ darsu boobu. te ñu ngi ko jëlee ci maam yi. te ñu ngi ko jëlee ci maam yi. maam ku mel ni maam Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu ku mel ni maam El Hadj Abdoulaye Niass radiyallahu xam nañ ne sëriñ bi loolu te xam nañ ne sëriñ bi loolu yow yaa ñu ko gën a xam. fekkee ndax fekkee nga ci lu bari muy jamono bu jafe. muy tombeeg jamono bu jafe. kii nekk Medina. kii nekk Medina sanc fi. kii nekk Ndorong. kii nekkee Ndorong sanc fa. ñu takkoo dëkk di jëflante. joxe ndigal. di joxe ndigal. ba sëriñ bi waxoon ne mboolem taalibe na nga ba sëriñ Basiru Mbàkke waxoon ne mboolem taalibe bu ajjuma jotee. mboolem taalibe murit bu ajjuma jotee na nga dem jullee ji Madina ajjuma. te loolu ba léegi. te loolu ba jamono ji mu ngi fay dox. te li tax mu dox. mooy njaboot gi. mooy njaboot gi. suñ gisee seeni sëriñ seeni buñ gisee seeni sëriñ ak seeni njiit juboo bennoo. bëggante. bëggante. di jokkoo. di jokkoo. loolu dañ leen koy wàll. loolu dañ leen koy tëbbu. ba nga xam ne ñoom seen bopp dañuy bëggante. ba nga xam ne ñoom ci seen bopp dañuy bëggante. soo demee Kaolack. soo demee Kaolack. Ndorong. Ndorong. da ngay gis ne da ngay mel ni Medina nga dëkk. dafay mel ni na nga dëkk. photo mu ngi jaxasoo ci benn bitig wala benn marché. photo Serigne Touba photo Cheikh Ibrahim yëpp ñu ngi jaxasoo ci bitig yi ci biir taalibe yi ci marché yi ci oto yi. juboo amutoon loolu du te su juboo amutoon loolu du am. photo yi yooyu yëkkatiwuñ leen de. waaye li muy wane. waaye li muy wane. mooy ñaari borom photo yii. mooy tegtale ne ñaari borom photo yii. seen njaboot bëggante nañ. seen njaboot bëggante nañ. te loolu yëpp yéen a ko liggéey. te jàppante googu yëpp yéen a ko liggéey. yow sa liggéey. Kaolack yëpp xam nañ yow sa liggéey sëriñ bi Kaolack yépp xam nañu ko. senegaal yépp xam nañ ko. xam nañ sa liggéey. addina yëpp xam nañ xam nañ sa liggéey. moo tax sëriñ bi di wax ne. moo tax sëriñ bi di wax ne. suñ ñëwee nañ la ndokkeel. suñ ñëwee nañ la ndokkeel. ci taxawaay bi nga xam ne taxaw nga ko ci Sénégal. ci taxawaay bi nga xam ne taxawee nga ko fii ci Sénégal. métti rawatina ci jamono jii bi nga xamee ne jafe-jafe yu métti amoon na ci Sénégal. jullit yi ak sëriñ si liggéey nañ ci de. jullit yi ak sëriñ si liggéey nañ ci de. waaye liñ ci liggéey. waaye yow liñ ci liggéey. Sénégal yëpp gis nañ loolu. yëpp gis nañ loolu. moo tax mu ne njàmbaar googu. moo tax mu ne njàmbaar googu. ak ak xam-xam boobu. bëgg gi nga bëgg Sénégal. ak mbugeel gi nga bëgg senegaal def leen ñoom ñëpp ñu nekk sa njaboot. def leen ñoom ñëpp ñu nekk sa njaboot nga jaboote leen. mu ne loolu jàngale gu rëy la. mu jàngale la. boo xam ne képp kuy jullit. jàngale la goo xam ne képp kuy jullit. war nga war nga cee roy. moo tax mu gërëm la ci loolu. moo tax mu gërëm la ci loolu. waxtu wu ne mu waxtu wu nekk mu ngi lay ñaanal yàlla. waaye mu ngi sàkku ci yow tamit ñaan. waaye mu ngi sàkku ci yow tamit ñaan. ndax mag ñee fi nekkoon. ndax mag ñee fi nekkoon démb. di ñaanalante. di ñaanalante. di dimbalewante. di dimbalewante. di di wéttaliwante. ba léegi. ba léegi. mu ne nag jamono fi mu ne jafe na lool. mu ne jamono fi mu ne jafe na lool. ndax nit ñi fi mu ne dañoo am xur dañoo am liberté. ndax nit ñi fi mu ne dañoo am liberté. foog ne wax lu leen neex rek. foog ne wax lu leen neex rek. mooy àddina. mooy àddina. te mu ne loolu réer passé wu te mu ne loolu réer passé wu ko. moo tax mu ne xam na ne seen liggéey bi ñu leen teg diis moo tax mu ne xam na ne liggéey bi leen teg diis na lool. waaye ngeen wéttalihante. waaye ngeen wéttalihante. loolu dana gën a dimbale njaboot gi. loolu dana gën a dimbale njaboot gi. mu ne tamit seetlu na lenn. mu ne it seetlu la lenn. diine lislaam. diine lislaam. dafay dem ba mel ni lu tumuranke. dafay dem ba mel ni lu tumuranke. fekk boobu la ko yàlla gën a taxawal. fekk booba la ko yàlla gën a taxawal. ndax mu ne sooy seet li xew Corée du Sud. ndax mu ne booy seet li xew Corée du Sud. ak li xew Pakistan. ak li xew ak li ci àddina bi yëpp. ak li kaw ci àddina bi yëpp. ñëpp a ngi daw rek jëm ci ñëpp a ngi daw rëcc rëcc loo jëm ci yàlla. di daane seeni estati. di daane seeni estati. di tudd yàlla. di tudd yàlla. te loolu yëpp. te loolu yëpp. liggéey nit ñu baax ñi rek ñoo ko liggéey nit ñu baax ñi rek ñoo ko waral. mu ne gis na sax ne diine lislaam ci boppam. mu ne gis na sax ne diine lislaam ci boppam. am na ñoo xam ne doxuñ jullit de. am na ñoo xam ne doxuñ jullit de. waaye dañuy dugg ci diine ji. waaye dañuy dugg ci diine ji. di ko mbubboo. di ko mbubboo. fekk pour xeex lislaam rek moo leen yëkkati. fekk pour xeex lislaam rek. moo leen yëkkati. te mu ne ni mu amee ci diine ji. te mu ne ni ñu amee ci diine ji. noonu la amee ci tariqa suufiya. noonu la amee ci tariqa suufiya. xam ne ñu bëree ngi wax ne ci lañ bokk. nga xam ne ñu bëree ngi wax ne ci lañ bokk. waaye tey lañ gën a ñaaw làmmeñ. waaye tey lañ gën a ñaaw làmmeñ. tey lañ gën a dañoo war a ñeme. tey lañ gën a foog ne dañoo war a ñeme. te te ñemewuñ sax. waaye dañoo réer. waaye dañoo réer. parce que ku réer rek mooy ñeme loo xam ne dafa raglu. ndaxte ku rek. moo ñeme loo xam ne dafa raglu. Ah, dinañ bàyyi daan na nettali. ndax bàyyi radiyallahu anhu daan na nettali. dafa am benn bés. mu ne dafa am benn bés. benn gaynde xëy fajar rek dugg ci ci dëkk bi dem tëdd ci penc benn gaynde xëy fajar rek dugg ci biir dëkk bi dem tëdd ca penc ma. mu ne bi bët setee. mu bi bët setee. xale yu ndaw yi nga xam ne xamaguñ luy gaynde. xale yu ndaw yi nga xam ne xamuñu luy gaynde. ñoom ñëpp ñu daw rek dem ci gaynde. ñoom ñëpp ñu daw rek dem ci gaynde ga ci tëdd. ñii di egg ci koom. ñii di suqi karaw yi. ñii di suqi karaw yi. gaynde gi bàyyee leen boppam rek. gaynde gi bàyyee leen boppam rek. waaye mu ne seen waajur yi. waaye mu ne seen waajur yi. biñ génnee. génnee. ku xool penc mi rek. ku xool penc mi. gis gaynde rek. gis gaynde ga fa mu tëdd. mu daw rek ne woy gaynde. rek nga daw yooxu ne woy gaynde. rek duggaat ci biir. rek duggaat sa biir nekk tëju. ndax mu ne ñooñu ñoo xam gaynde. ñoo xam gaynde. waaye ñi nga xam ne dañoo foog si. gaynde wi am ni ñoom ñoom lañ bëgg a jël di leen kalli kale waaye ñi nga xam ne dañoo foog ne sëriñ si gaynde yu xam ni ñoom dañ leen a bëgg a jël di leen kall kale ñu ngi ci danger bu mag ñu ngi ci danger bu mag te suñ delluwut gannaaw te bu ñu delluwut gannaaw du baax du baax waaye mu ne nga ñaanal leen waaye mu ne nga ñaanal leen ndax loolu manqué manqué rek la ndax loolu manqué manqué rek la ak ñàkk xam ak ñàkk xam-xam ak ñàkk imaan. waaye sëriñ si ku leen xam. waaye xam. xam taxawal alquran. da nga xam ne taxawal alquran. di jàng alquran. di jàng alquran di ko jàngale. di julli. di yar seen njaboot. di yar seen njaboot. leen dimbale ba nga xam ne àddina yëpp ngi dimbandikoo seen jàng jàng. di dimbale ba nga xam ne àdduna yëpp ñu ngi dimbandikoo seen i njàng ak seen xam-xam. mu ne seen liggéey dëgër na dëgëraay boo xam ne. mu ne seen liggéey dëgër na dëgëraay boo xam ne. dara mënut koo màbb. dara mënut koo màbb. te loolu rek mooy li xew ba jamono sosoo ba léegi. te loolu mooy li xew depuis ba jamono sosoo ba tey jii. ci jamono yonent yi jiitu woon. li ko dalee ci jamono yonent yi jiitu woon. ci jamono yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ba bés gii tey. te loolu yëpp. jokk mbokk rek. mbokk rek. ak di dimbalante. ak di gis ne alxalqu yàlla la gis ne mbindeef yi njabooti yàlla lañ. yi yàlla lañ. te ki ëpp ci ñoom yërmande. moo gën ca yàlla. moo tëjee ko rek. ñu tëjee wax ji nag. waxtaan boo xam ne daf koy faral di nettali sëriñ bi. benn waxtaan boo xam ne. sëriñ bi daf koy faral di nettali. ci ànd bi nga xam ne yéen a ngi koy ànd. ci ànd bi nga xam ne yéen a ngi ko kóllërewante di ko ànd. ba nga xam ne loolu moo waral suñ ñëw bii tey. ba nga xam ne moo waral suñ ñëw bii tey. loolu ni muy nasaxalee. loolu ni muy nasaxalee. képp képp koo xam ne rek. ay ne bu lëndam nga am lii xew nii tey. lii xew nii tey. am nañ addina bi yëpp danañ ci kontaan. addina bi yëpp danañ ci kontaan. waaye am na am benn benn yoo xam ne. waaye am na benn benn yoo xam ne. dina def feebar bu métti ci seen xol. dina def feebar bu métti ci seen xol. réer rek moo ko waral. te réer rek moo ko waral. koo ci laajoon sax. koo ci laajoon sax. du du lay mukk ba indi li tax ne moo am dëgg. du lay mukk ba indi li tax ne moo am dëgg. mu ne am na benn bés. mu ne am na benn bés. dafa am benn buur. dafa am benn buur. benn dañ koy nettali benn golo ñëw dugg ci toolam di lekk. lépp bu ñuy nettali la benn golo. ñëw bés ci toolam. di lekk tool ba. mu jàpp golo gi. mu jàpp golo gi. ne ko demal bu subaa nga ñëw. ne ko demal bu subaa nga dellu si. ne yi su ñëwee rek ray la na gaay bu golo gi ñëwee rek rey leen ko. golo gi tamit ñu dee ko ne ko nee na suba dañ lay golo gi ñu dee ko ne ko buur bi nee na joxe na ndigal bu subaa boo delsee fii nañ la rey. golo gi dem ci mbokki goloom yëpp. golo gi dem ci mbokki goloom yëpp. ne buur daf maa jox rendez-vous. ne leen buur daf maa jox suba ca toolam ba. mu ne daf may rey. mu ne daf may rey. golo yëpp bëbb rek golo yëpp bëbb rek ànd ak moom. doon ay téeméeri téeméeri golo. doon ay téeméeri téeméeri téeméeri golo. biñ ñëwee uy si buur bi. biñ ñëwee uy buur bi. buur génn. buur génn. ne ana golo gi. ne ana golo gi. ñu ne ñoo ngi nii. golo yëpp ku ci nekk ne ko ñoo ngi nii. ñoom ñëpp ñu waxandoor ñoo ngi nii. ñoom ñëpp ñu waxandoor ñoo ngi nii. mu ne golo gi laa wax. mu ne golo gi ma bëggoon na rey laa wax. ñu ne ko ñu ngi nii. ñu ne ko ñu ngi nii. mu ne kon nag dem leen. mu ne kon nag dem leen. kon yéen ñëpp ay golo ngeen. kon yéen ñëpp ay golo ngeen. mbokk mee ma tooñ. seen mbokk mee ma tooñ. te gisuma ko ci seen biir. te gisuma ko ci seen biir. dem leen dem leen. mu ne ànd tamit. mu ne ànd tamit. ànd mbokkoo. ànd mbokkoo. loolu rek lay indi. loolu rek lay indi. kenn du leen mënal dara. kenn du leen mënal dara. moo tax nag yéen a muñ. moo tax yéen a féetee seen der bi nit ñaa ngi koy tagg. seen der bi nit ñaa ngi koy tagg. nit ñaa ngi bind ay livre ci yéen. nit ñaa ngi bind ay livre ci yéen. ñaa ngi def ay xutba ci yéen. nit ñaa ngi def ay xutba ci yéen. nit ñaa ngi def ay ëbyaat ay woy ci yéen. nit ñaa ngi def ay woy ci yéen. waaye am na loo xam ñoo xam ne loolu yëpp gisuñu ko dégguñu. waaye am na ñoo xam ne. loolu yëpp gisuñu ko dégguñu ko it. tey rek lañ gën a mën a def safaan. tey daal lañ gën a mën a def safaan. waaye nag mu ne ñi baax. waaye mu ne ñi baax. baay moo ko nettali. baay moo ko nettali radiyallahu anhu. ñi baax mu ne ñi baax. dañoo ànd ak ñi baax rek ba dañoo ànd ak ñi baax rek. ñu wàll leen seen ak mbaax gi ba ñu baax. ñi bon tamit. bon tamit. dañoo ànd ak ñi bon rek dañoo ànd ak ñi bon rek. ñu yóbbaale leen ca seen mbon ga ba ñu far bonee fa. alhamdulilah bi ñu àndee ak ñi baax. waaye alhamdulilah ba ñu ànd ak ñi baax. ñu mel ni yéen awliyaa yu mag yi. ku leen gis. nga xam ne ku leen gis. amul sikk. amul sikk. su fekkee xolom bi am na basiira. ne su fekkee ne xolom bi am na basiira. dana xam ñu baax ñaa ngi. dana xam ne wallaahi nit ñu baax ñaa ngi nii. yàlla kaste na seen i xol. waaye yàlla kaste na seen i xol. seen i bët yeeg seen nopp yeeg yëpp yàlla kaste na ko. seen bët yeeg seen nopp yeeg yëpp yàlla kaste na ko. ba lu baax. ba mënuñoo gis lu baax. waaye am na ñoo xam ne. waaye am na ñoo xam ne. su ngeen leen xeeñee rek. waxut gis waaye su ngeen leen xeeñee rek. texe gu mag la ci ñoom. texe gu mag la leen di jural. seen njaboot ak seen njaboot ba ci seen gert. moo tax sant yàlla. moo tax sant yàlla alhamdulilah. moo tax sëriñ bi yónni woon nañu ne ñu ñëw fii. bu ñëwee. Euh, ak suufee gu mag. ci ci topp ndigalam. su fekkee wane nañ loo xam ne fekkee ne wane nañ loo xam ne sax du yar. dawut ci moom waaye ci ñun la. dawut ñii mu yónni la. waaye ku la xool. waaye ku la xool. teraanga ak yar ak teggin bi nekk ci yow. ak yar ak teggin bi nekk ci yow. dëgg-dëgg xam nañ ne mën nañoo roy ci yow. dëgg-dëgg xam nañ ne mën nañoo roy ci yow. état bi kontaan nañ ci yow bu baax. bi kontaan nañ ci yow bu baax. ñu ngi koy wax ndax dañuy ñëw foofu. ñu ngi koy wax ndax dañuy ñëw foofu. taxawaay bi nga taxaw. taxawaay bi nga taxaw. di jël sa alal di ko joxe. di jël di jël say kàddu di digal nit ñi. di jël nit ñi. ñëpp ngay digal. ñëpp ngay digal. jullit amul ku dowul jullit. loolu nit ku mag rek moo ko mën. nit ku mag rek moo ko mën. waaye noonu rek la mën a demee. waaye noonu rek la mën a demee. ñu ngi ñaan yàlla may la fan wu gudd yaa bi ak wér gi yaram di sant yàlla ci yow. di kontaan ci suñu doom Sidi Habib li mu ci yow. di kontaan ci seen doom Cheikh Sidi Habib li mu seede ci yow. man de loolu maa mu ne moom day kàddu yooyu mu ngi koy soog a dégg fii. waaye suñ demee danañ ko jotal sëriñ bi. mu ne suñ demee danañ ko jotal sëriñ bi. ak waa Medina yëpp. yëpp. dañoo war a roy ci yéen suñ loolu nag nit ñi dañoo war a roy ci yéen yéen seen doom yi. ngir ñu am yar boobu. ngir ñu am yar moo tax ñu ñëw tey. moo tax ñu ñëw tey. li tax ñu tànn leen. li tax ñu tànn leen. biñ àndeeg Cheikh Habib. biñ àndeeg Cheikh Habib. ak Baye Cissé. ak Baye Cissé. doomam. Ousmane Cissé doomi Seydi Aliou Cissé. ak Serigne Ousmane Cissé di doomi Seydi Aliou Cheikh Baye Hadi. ak Cheikh Baye Hadi. xam ne yéen ñëpp xam ngeen ko. nga xam na ngeen ko. ak Ahmed Niass doomi Cheikh Ahmed rakki di rakki Sidi. di rakki sëñ Sidi ñoo bokk papa. Cheikh Baye Mahdi sama doom. Cheikh Baye Mahdi mii ci sama gannaaw di doomi sëriñ bi. ak euh, Seydi Taïb sëti Baye Mbaye Niass. Seydi Taïb. sëti maam Baye Mbaye Niass. ak muqaddam yi ñoom Ibrahima ak Serigne Aliou Niass. doomi Cheikh Ahmad Dame Al Khalifa. di rakk sëñ Sidi mii. ñëpp ñëw nañ sëriñ bi def na woon sax ñu ñëw nii. sëriñ bi def na woon ñu ñëw nii. beneen yoon. yoon. kenn mu ne Medina bëggut kenn des fa. macha eh, gis nañ ne dëgg dëgg ñëw nga fa ay yoon. gis nañ ne dëgg dëgg. ñëw nga fa ay yoon. te loolu yëpp jokk mbokk rek moo ko. te loolu yëpp jokk mbokk moo ko waral. di gërëm tamit Cheikh eh, Abdoul jéeg di gërëm Cheikh Abdoul Ahad Mbacké. ñëw na fa ci koor ga. ñëw na fa ci sa tur. ñëw na fa taxaw taxawaay wu rafet. laylatul xadri ci guddi laylatul xadri bi am na yu bëri yoo xam ne rek mu ngi fay ñëw te am na ay xew-xew yu bëri yoo xam ne mu ngi fay ñëw su ñëwee rek dana indi li nga ko wax yëpp te su ñëwee rek dana indi li ko wax lépp ci jokku mbokk ci jokku mbokk ak fàttali démb ak di fàttali démb ak waajuram bu baax bi ni meloon ak Cheikh Ibrahim ak waajuram wa ni meloon ak Cheikh Ibrahim ci jamono président Senghor. ci jamono président Senghor. mu lool. mu métti ci ñoom lool. waaye ñu ne dimbale njaboot gi nar a ñëw ëllëg moo tax bëgguñ bëgguñ dara. waaye ñu ne dimbale njaboot gi nar a ñëw ëllëg moo tax bëgguñ dara. moo tax def nañ lu nekk. moo tax def nañ lu nekk. ba tey njaboot gi yëpp sant nañ yàlla. ba tey njaboot gi yëpp sant nañ yàlla. ñu ngi gërëm di sant. di ñaan yàlla yàlla nangul ñu. daf ne woon nag suñ ñëwee ñu indi bagage yi. daf ne woon nag suñ ñëwee ñu indi bagage yi. am na fili alxuraani baay ak kaasi kulil baas ak ay kaamil شكرنا لنا وقعد لي منه تعالى ولنا عدم توجيه مكارئ القدر من جكسس لأبدا محل كدر عدم توجيه مكارئ القدر من جكسس لأبدا محل كدر إلا يواجه الكريم الباقي ذو الأراضي نصب وتباقي ما رمته منه بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى شهد لي ربي بأني عبدو لو قديم للنبي ويبدو هدم بنية أذى يلاحو يقضي الذي نادعني الإله دون مكاتب العبادات معا تغربي كل المذايا جمعا وجه الذي يحبني يبيض يوم وجوه السعداء تبيض أجر الذي ناذحني ولم يتبوا شقاوة تدوم في أم الكتب ببان أن المنتقى وسيلتي صلى عليه واهب الوسيلة يجدني عند مليك مقتدر كل ولي للجنان يبتدر baaxa bi xidmatu nabiyul awliyaa alayhi moorida mufiidin ayliyaa karamanil karimu wal mukarrimu bijaayi man huwa nabil mukarramu radiya anillahu wal muxtaaru wa xamiyat kulliyati astaaru من لم يوافقني في الذي أحب نفاه ربه إلى ما لا يحب هداني الهادي فلا أضل فمن يوافقني فلا يضل عني محا سوى رداه الأكبر باقنتان من غير ذبري إلى سواي كل من آداني بطرف باق ذكر وغداني ما تغرف ذكري ضلالي كما تجود لي بالحلال جاد لي الباقي بما لا ينفد كما ترى مني مبيعا ينفد كتاب ربي يا رفيقي أبدا به كفاني الله من لم يعبدا سلامة الذي يلوذ بالحليم وبالنبي بي من المنفعلين شكرت من لي لا يوجه القدر في أبد وقاد لي بسر القدر شكرت من لي لا يوجه القدر في أبد وقاد لي بسر القدر شكرت من لي لا يوجه القدر في أبد وقادني بسر القدر yaa man bi am daayihi li yuftaxul baabu duniya wa uxra wa du nadaraki albaabu yaa man bi am daayihi li yuftaxul baabu duniya wa uxra wa du mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax jot leen nuyoo bi ca kilifa ga fa tabarakallahu gis nañu yitte ji bu baax a baax xam nañ ne yitte ju kawe la ndax ni ma ko yitteele ba tax mu tànn njabootam gu baax gi yebal leen fii muy tànk yu yu diis di tànk yoo xam ne yu baax rekk ko tax a jóg ndax xam nañ ne eh, jéego yooyu ñu ngi jëm rekk ci eh, gën a dëgëral diine jóge rekk ci fonk diine ndax eh, ni mu ko defe eh, tànn njabootam bu baax gi jóge ca dina bàyyi jëm si fi ci Tuubaa lépp ngir dundal diine rekk la xam na loolu bu baax a baax a baax eh, ba tax na indil eh, nañu cant gu rëy rëy rëy indil nañu soññ bu rëy rëy ci nu gën a nekk ci sunu wartiif te nekk ci sunu wartiif eh, jaamu yàlla rekk moo ci jiitu lu ca dolliku muy muy defar bokk kon nag loolu na nañu ci yaar yëpp soññ nañu ci diine soññ nañu it ci defaru bokk ndax ndokk bi nga xamee ne defaru bokk <coughs> yu baax yi yi dul farata yëpp mm-hmm. defagul bokk moo ci jiitu te lii dundal diine rekk la ak defagul bokk xam na loolu bu baax a baax a baax baax kon loolu soññ nañu bu baax a baax a baax kon amuñu ci daal loo xam ne moom lañ ci wax loolu ak cant rek cant gu rëy rëy gis nañ jëf ji bu baax a baax jéego yu sell yi nga xam ne suñ yéen suñ mbokk yu baax yi jiw ngeen ko ba fii te lépp di lu baax rek muy dundal diine ak defar bokk loolu yëg nañ ko bu baax a baax sunu xol sedd na ci sunu xel gën na ci daal sunu ci yokk lépp rek nu fas ni ko delloo ci euh, gën takku bu baax a baax gën dëgër bu baax a baax a baax eh, ci rekk dundal diine ak gën a sàmm wëllëre bi wëllëre yàlla rekk la kon nag noo ngi koy fas yéene noo eh, eh, bii donc ci fas yéene gën a euh, fàttali bu baax li nga xam ne moo dox suñu diggante gën a gën a dëgëral bu baax a baax wala rëy wu rëy nga xam ne moo dox diggante fas yéene suñu dund suñu suñu suñu fas yéene ko gën a sàmm euh, gën leen ci gàttandu bu baax fas yéene koo ànd ak yéen sax dàkk rekk sàmm diine dundal diine sax dàkk ci liggéey lislaam loolu rekk mooy moo nu fi bàyyi ndax moom rek lañ fi fekk kon loolu xam na ni moo fi bàyyi ñoo ngi sant bu baax nag ci yaakaar ji nga xam ne eh, sëriñ ba am na ko ci nun ba yebal leen eh, ngeen jéego jéego yi ngeen jéego ba si fii ak seen njëtaay bu rafet bi loolu jooju yaakaar eh, waaw dañ koy soññee suñu bopp rek gën ko sante suñu borom bu baax a baax a baax gën a ko sant moom Cheikh Mahamadou Xami Mahi noo ngi koy delloo njukkal di ko cant-cant gu rëy rëy rëy di ko gën a tàllal loxo parce que ni gën a ànd ak moom lépp ci nekk ci suñu wartiif muy liggéey lislaam na nu ko jottil euh, ziyaare sunu cant sunu ngërëm mu xam ne gën nañoo soññ nañu bu baax ci lu li nu war a nekk noo ngi gën a di ko gën a xamal ne ko rek noo ngi gën a feddali sunu laxasaay fas yéene ko fas yéene gën a ànd ak moom lépp ci incha allah sax dàkk ci liggéey lislaam loolu jotaay bi ak euh, jéego yi ak kilifa gëm jógee ak seen jataay bi rëy ci ñun rëy boo xam ne eh, amuñu ci lenn xamuñu ci lan lu ñuy mën a wax loolu mooy mu mu mu cant lépp ak cant la lépp ak cant rek la ak soññ suñu bopp jërëgeen jëf jërëjëf ñu ko siyaareel bu baax a baax a baax